Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. alors nekkin Ousmane Sonko un fils de la Casamance dina la déranger déranger ñeneen et dafay continuer di leen déranger te doo leen ci mën dara mun leen ci dara dara ngeen ci tafas. lu dul ay wax waxu seytaane rek waxu iblis jaxate pour mun a taal réew mi yow ak ma jàmbal jaaj mais est-ce que am ngeen compétence boobu intelligence boobu pour mën a influencer sénégalais yi pour ñu mën a euh, euh, créer guerre civile biir Sénégal est-ce que yéen am ngeen ko est-ce que sénégalais yi bàyyi nañ leen nopp boobu pour ñu mun leen déglu loolu moo leen di wan yéen vous n'êtes pas crédible boo leen amoon jom yow Iblis jaxate dootoo toggati. ci plateau télévision ak sa mbaxane seytaane bi nga am noonu say garambu bu seytaane yi ngay am noonu toog di wax di jëm ci Sénégal parce que amoo jom amoo fulla amoo fayda doo gor traître nga quoi yéen ñëpp lii mooy dëgg quoi ñoom ma jàmbal jaañag oui euh, ñii nekk ak Macky Sall ay joolaa la ñu tey ak lan lañuy ñuy attaqué amuñu benn argument bu ñu war a mun a attaqué Ousmane Sonko ma jàmbal jaañ tous les politiciens de APR de Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne ñi ngi Casamance amuñu lan lañu mun a teg ci deru Ousmane Sonko parce que ñoom xam nañu xàmmee nañu ràññee nañu xam nañu fu dëgg nekk dof ñu dina jàpp ñoom dofu ñu dina jàpp ma jàmbal jaañ donc ces politiciens de APR la te ñi nekk Casamance bokk benn bokk yaakaar ñoom dofuñu laa wax jinne jàpp leen parce que xam nañu bu baax li ñuy def xam nañu bu baax li ñuy def te contexte bi ñu toll tey dootuñu nangu un un imbécile jóge ci benn région ñoo bëgg a boole doomu Casamance pour ñi xeex du am ngir lan politique ban politique ban politique moo ko fi jar amul parce que ñoom déjà ñoom ñi nekk Casamance te ñi nekk ay responsable politique ci biir Casamance bokk APR bokk penn bokk yaakaar ñoom déjà ils ont trahi le peuple casamançais la population de la Casamance bi leen fal dañ leen trahir parce que ils ont un défi à ils ont des comptes à rendre parce que dañoo échoué ñoom ñëpp échec ñoom ñëpp dañoo échoué lamentablement et minablement ils sont combien ñaata ministre qui sont dans le régime de Macky tey ça fait neuf neuf ans ñaata responsable politique ñoo nekk APR nekk Casamance ñaata responsable politique ñoo nekk benn bokk yaakaar nekk Casamance qu'est-ce qu'ils nous ont amené pendant neuf ans lan dama bëgg ñoom ñu wax ñu lan mooy seen bilan ñoom déjà problème boobu la ñu am moo leen sonal yow ma jàmbal jaay nga jënd ci problème waasoo pour wax leen ni way euh, euh, ba euh, mankaañ yi ak kërëng kërëng yi ñàng nanga ñoom euh, euh, ñoo ànd ak euh, xaw ma na ñoo votelul Ousmane Sonko Ousmane Sonko dans l'unanimité tout fils de la Casamance moo ko sànni carte c'est une fierté pour la Casamance et nous sommes fiers d'avoir Ousmane Sonko comme fils de la Casamance et ça sans complexe ni hésitation ni murmure c'est une fierté te yéen ñi politique ba ci journaliste yi kenn gënu ko ko am compétence kenn gënu ko yub kenn gënu koo ragal yàlla kenn gënu ko xarañ kenn taxu ko communiquer kenn ëpp ko compétence kenn ëpp ko engagement kenn gënu koo nekk góor kenn ëpp ko fit ci yéen yàgg naa leen ko wax Mohamed Fadel Gueye maa ngi lay ziar waaw boo buggee joxe sa participation rek boo defee appel ma jël la boobu parce que man ak yow am nañ fu ñu jaar Mohamed ci développement local waaye baax na léeg-léeg boo dugg see rek ma jox la buntu nga wax donc ma jàmbal Diagne yow ñi nga yaakaar ni APR lañu bokk benn bokk yaakaar ak ñoo ñiy toog di yuuxu yëpp foofu bu ñu dajee ak Ousmane dañuy lem seen genn ñoom dañuy toog ci seen genn déggoo ma de. les politiciens de benn Bokk Yaakaar ñi nekk Casamance yëpp ak politiciens de benn Bokk Yaakaar ñi nekk APR ñoom ñëpp fu ñu dajeek Ousmane dañuy lem seen ñoo ñooñu dañoo jëbbalu ba pare jëbbalu nañu yàgg na parce que bo bu ñu toogee ci plateau télévisé du ñu am argument bu ñu mën a développer pour convaincre sénégalais amul pour wax ak doomu Casamance yi amul y en te ku ci wóolu sa bopp rek te ku ci wóolu sa bopp rek Madiambal Diagne pour moo woon la ni ñoom ñëpp amuñu argument ñu laa tous ces politiciens de Benno Bokk Yaakaar et de APR de la région naturelle de la Casamance ku ci wóolu boppam quiconque a confiance à lui mu ñëw ñu organiser plateau un débat entre ñoom ak Ousmane Sonko nga xool daf leen di futti taatu neen kenn du ci ñibbi et c' est valable pour yenn yenn politiciens yenn laa wax yenn cadres yi nekk APR ak benn bokk yaakaar ku ci toog ak Ousmane Sonko doo ñibbi ak tubéy ak mbubb parce que moo leen gën a xam moo leen gën a jub moo leen gën a ragal yàlla moo leen gën a xam fu mu jëm. moo leen gën a xam lu mu yor lan la moo leen gën a xam responsabilité bu mu am argument yu mu leen wax depuis lors ba léegi kenn mënu ko dindi du Macky Sall du ay lieutenant Macky sal di ñeneen yenn amu leen argument pour contrecarrer Ousmane Sonko lu dul seen argument lan la mooy sos fen duul ak dajale ak complot loolu rek ngeen am. naka la ñuy def pour faagaagal Ousmane Sonko mais bu leen di woo ci débat de société mu leen di woo ci débat utile pour réew doo leen ko ci fekk parce que nga xam ngeen ni amu leen argument amu leen vision bi amu leen mentalité bi amu leen capacité intellectuelle bi amu leen projet de société boobu pour faire face à ce jeune gosse la de 40 ans. à l'absence de tout cela votre solution c'est comment mentir pour exister comploter pour exister loolu ngeen am moo taxit euh, les leaders là les responsables de politique de la Casamance naturelle ils ont ils sont dans l'urgence d'expliquer à la population de la Casamance pourquoi depuis neuf neuf ans ils sont avec le pouvoir là ils n'ont rien apporté pour la Casamance c'est ça c'est ça c'est là où se situe le débat aujourd'hui ils ont un bilan ils ont à nous rendre compte ils doivent rendre compte ñoom problème boobu la ñu am tey ak population Casamance bi ak jeunesse su Casamance parce que moi je comprends très comprends très très mal man nekk ci pouvoir bi je ne suis pas capable andi même benn boutique tabax même benn boutique je suis pas capable en tant que ministre wala député wala maire aujourd'hui ils sont en train de manigancer pour repousser les élections pour augmenter encore ces maires-là ñu continuer di piller le foncier sénégalais même bu ñu yokkee encore le mandat de ces maires-là taxul Macky Sall gagné élection yi parce que le peuple a décidé yàgg na jeex na repousser élection yi pour nga mun a préparer les communes là tu vas perdre tu as perdu accepte de perdre Parce que jamais, jamais, tu ne peux pas gagner les élections là, Macky Sall. Nous ne gagner pas élection au Sénégal. Parce que le peuple a décidé, c'est fini. La jeunesse a décidé, c'est fini. ay boo randonnée pédestre la cette racaille la population bi dofuñu ah ay junni yi ngi di jox 10 000 pour ñu jënd si la mais dañuy jël xaalis ba xam nañ ñu xaalis boobu seen xaalis la ñoom ñoo ko moom c' est l' argent volé c' est l' xaalis bi ngeen war a jël tabax réew mi pour mu dox ndaw yi am liggéey am xëy xaalis boobu ngeen jël pour defar ay t-shirt ak ay 5000 10 000 di leen konoom pour ñuy jënd si ci ay marché le peuple n'est pas fou la jeunesse ne pas fou donc il faut que les gens comprennent que fa ñu toll xeex libération rek moo il faut qu'on se batte pour dégager la France et pour pouvoir dégager la France quitter cette monnaie-là il faut qu'on parvienne à bouter dehors ce régime de Macky Sall ñi fii des responsables des dirigeants responsables qui ont la mentalité, le Sénégal d'abord, le Sénégalais d'abord, qui ont le courage des réformes. Et fii ki ma fi gis mooy le porteur de l'espoir de tout un peuple, d'une jeunesse, c'est Ousmane Sonko. moom rek moo fi am courage réforme boobu c'est le seul leader bi nga xam ne moo osé wax les APE parler du franc CFA parler de renégociation de tous les contrats parler le départ de, euh, euh, la France parler le départ de l'armée sénégalaise l'armée française c'est le seul leader bi ko ñeme wax ce discours de rupture là mu ngi ci moom ba léegi moom rek moo am moom il est le seul capable mooy avertir ñi nga xam ne ñoo bokk ci opposition bi qu'il ne verse pas dans l'intoxication et l'amalgame Pastef amul problème ak benn parti politique de l'opposition il faut que mu leer Pastef amul problème ak benn politique parti politique de l'opposition il faut que ça soit clair mais constat bi gis te kooku man du ma ragal wax ah. damay wax waa PDS nañu dal ñoo ngi faire attention ñu dal te xam ne les données ont changé te ñoom nañu dal nañu xam ne politique bi nekk di di torturer Sénégalais yi installer Sénégal daal le kaw ñoom PDS ñoo ko fi indi c'est le libéralisme il faut que ñoom ñu am ni ils ont une part de responsabilité dans ce qui se passe dans ce pays ah il faut que xam lool ma bëgg nag nañu ànd ak dal ñoom ñu joxante cër te na ñu bàyyi seen attaques yi ñuy def noonu mënuñu déstabiliser Ousmane Sonko mënuñu déstabiliser Pastef parce que pour Karim Wade Karim Wade su woon am fit day toog Sénégal Macky Sall du ko jëndee loolu mooy xeex wax dëgg bu amoon fit nekk xeexkat Karim Karim warul jënd sa Sénégal parce que Nabil Moustapha loolu mooy dëgg bi foofu mooy loolu mooy dëgg bi. Sall moomul Sénégal day dee kaso wala du jënd Sénégal loolu mooy dëgg quoi c'est ça la vérité Ousmane sonk jëndul Sénégal de bañ ko jéemee fexe néewal doole résistance la woote parce que résistance bu ngi ci droit constitution bi patriote yi ñëpp jënd Sénégal yëpp jënd. taxaw ànd ak moom ñi xeex résistance bi te dafay continuer ah. résistance bi day continuer donc soo buggee jiite réew da ngay am fit toog xeex dans la logique dans le respect de des lois loolu mooy dëgg mais doo jënd dem toog Qatar ba pare ngeen bugg ñu fii mun tane mënul yàkkamti jënd taf-taf mu dem ba pare ngeen bëgg a ñëw pour jéemuñu mbubboo ay yeneen faux profil di ñuy attaqué non ñun Pastef amul problème ak pedes kon PDS bu ñu daanu ci piège boobu quoi PDS bu mu daanu ci piège boobu dégg ngeen Ousmane Sonko nee na dañu war a rétablir les droits de Karim et de mais nit nit ku leen wax loolu mais bañu leen soxoru la Ousmane il n'est pas mauvais Ousmane bañul concurrence Ousmane ragalul concurrence Ousmane su demee ba muy plaider justice pour ñu rétablir Karim ak Khalifa Sall c'est parce que gëm na boppam gëm na yàlla wóolu na boppam wóolu na yàlla képp ku yàlla tànn nañ mu nekk ci boppu réew foofu ngeen wutee ak Ousmane Sonko ku dempe ne la être président n'est pas un un choix un fin à euh, euh, à kon fexe leen ba bu mu leen gën a gore yéen waa PDS laa wax la na ngeen fexe ba Ousmane Sonko bu mu leen gën a gore bu leen yaakaar ni yéen poids bi ngeen am dafa am ba léegi nekkul. parce que sénégalais yi que taal na xelu sénégalais yi taal bëtu sénégalais yi ubbi seen xel ubbi seen nopp ba jeunes yi di ràññee fu ñu dem ba ay jeunes yi am 12 ans 13 ans jël seen responsabilité xeex si résistance bi yan PDS ci ngeen war a xam ak APR nii coppite am na Sénégal muy commencé am Sénégal kon àndale nag dal Karim Wade qui descend avec des milliards ñun on s'en fout ça nous regarde pas Karim Wade vous envoie 450 millions de véhicules c'est pas ce qui est importé du loolu mooy tabax Sénégal Sénégal lu koy tabax projet de société mooy tabax Sénégal te projet de société boobu am na existé na ki koy incarné mooy kan mooy Ousmane Sonko mu neex leen mu naxar leen moom la ko yàlla jagleen et les Sénégalais ont compris que c'est lui le porteur de ce projet qui constitue un espoir pour la jeunesse sénégalaise et africaine te tey la ñu gën a takku pour soutenir le projet parce que c'est le projet du peuple sénégalais Karim Wade su amee projet na ñëw ah parce que d'autant plus que le leader de PASTEF mu ngi plaider pour ñu yëkkati ñu rétablir les droits de Karim Wade Karim Wade s'il a un projet il n'a qu'à venir keneen noonu waaw parce que tapet mooy bañ xeex tapet ragal mooy bañ xeex yàgg naa leen wax Ousmane ñantu Ousmane Sonko am ay xeexkat lañu mais vous ne comprenez pas l'histoire de il faut chercher vous na moi je crois que vous n'avez pas compris l'histoire de Ousmane Sonko la descendante de Ousmane Sonko vous ne comprenez rien. Cherchez, fouillez, vous allez trouver l'histoire de l'Empire du Gabou. 33 provinces, depuis la Guinée-Bissau, Benyoro, la descendante de Ousmane Sonko, nous avons conquérir, nous avons contrôle, nous avons maître. Ils ont la guerre dans le sang. Comme Ousmane Douragal, quoi. Il n'est pas un peureux. Et ce n'est pas des milliards, kii feront que mu reculer dans sa politique déedéet politique de vérité la am d'honnêteté intellectuelle de justesse d'honnêteté religieuse politique boobu la am moo tax lépp lu mu joxoñ day dagg bokkul ak politique de corruption vous n'avez rien compris moo tax ma leen di ñaan yéen PDS vous étiez aux commandes yéen gérer ngoon Sénégal lan ngeen def Sénégal yéen ñi yuuxu fi yëpp ñam ngeen nguur tey bu ñuy wax dëgg te ak xulaay taalaa yéen ñi nekk di yuuxu fii këran kër yéen ñëpp ñam vous étiez aux commandes yéen nekk ngeen ay ministre yéen ñi nekk opposition di yuuxu di nga ratata surtout PDS ñam ngeen nguur vous êtes comptable de ce qui se passe au Sénégal alors bu leen ñu pousser ñu wax bu dee xeex boobu ngeen bëgg d'accord ok on est prêt bu dee xeex boobu ngeen bëgg nous nous avons des arguments pour faire face à vous parce que ñun musuñu yore responsabilité ci réewum Sénégal suñu leader dafa set wecc blanc comme di neige comme di kaolin musul sàcc dërëm Sénégal musul corrompre benn sénégalais. benn sénégalais musu ko korop musul jël alal réew mi musul fen sénégalais yi lépp lu mu wax sénégalais suba ngoon guddi bëccëg dañ ci teg bët liggéeyal na Sénégal ci buntu xaalis dugal ay milliards ci keesu Sénégal quinze ans impôt et domaine mu mënoon a sàcc ay milliards nekk ay milliardaire waaye déedéet ca yariñ ba ca jikko ba ca sellal ba ca nekk diine gëm yàlla ragal yàlla ragal bàmmeelam ak njub bu mu nekk ci moom ak nuñ ko yaree tax na mu jomm jël dër ñaar fukki dërëmu Sénégal kon ñun suñu mbër macha allah nous on est fiers on se reproche de rien bépp mbër bu taxaw fii rek ñeme nañ la songu ci débat parce que déjà il est en avance sur vous parce que yéen da ngeen a tilim lu bon ngeen sàcc ngeen nu mu bon a bon a ngeen a tilim. foofu la wutee ak yéen te nag ami mbokk teg ci attention hein yéen ni ngeen amee mbokk moom Ousmane Sonko noonu la amee mbokk ay mbokk yu ko taxaw ci zaahir ak baatin foog mu leer débat bi kenn du fi wax wax pour négocier maslaawuñu te ñun duñu négocier ak kenn ñi ngeen amee mbokk Ousmane Sonko noonu la lay amee mbokk ñu ko taxaw ci zahir ak baatin pour muy leer na leer ci seen bopp yéen ak Macky Sall ak ñu mu àndal ñëpp ak yéen ñiy toog di ratatati ci plateau télévision yi da ngeen wax suba ngoon guddi bëccëg mais tafas ngeen ko mënalul lu mel ni pepp suuf mënal nañ ko ko te fooloon ko woon nag ci xeex mu topp leen kooku il faut mu leera moo tax yéen seen complot yooyu ak Adji Sarr yooyu ngeen bëgg a jël naan dañ ko yóbbu ci international bi su ma amee lu ma leen di yedd conseil bi ma leen jox yéen député yooyu gannaaw da ngeen a laaj ci projet yi war a tabax Sénégal munu leen defar Sénégal munu leen def dara te sénégalais di leen fal pour ngeen defar Sénégal pour ngeen xalaat ci projet yi war a yóbbu Sénégal ngeen voté yu yooyu ngeen laaj ci. amuleen leneen lu ngeen di def pour fay sénégalais yi pour récompenser lu dul gàddu fen dossier complot boo xam ne ay fen la ay nar sos yi ngeen dajalee pour faagagal un opposant moom ngeen yóbbu sur le plan international boo leen fa demee gàcc rek ngeen di jël ak défaite parce que dossier Karim Wade défaite ngeen fa jël institution internationale xam nañu Sénégal ay fenkat lañu xam nañu c'est un régime de menteur dossier Khalifa Sall pareil idem les institutions internationales xam nañu ay fenkat ngeen c'est un régime de menteurs et de complotistes doo leen am crédibilité léegi même américains sax commencent à douter les États-Unis d'Amérique commencent à douter à se méfier de ce régime de Macky Sall parce que xam nañu du ñu wax dégg parce que le dossier assan Diouf est là tout récemment américains yi fàttewuñu ko de les Américains n'ont pas n'ont pas oublié le dossier de Assane Diouf loolu joué na sur le dossier de Ousmane Tunkara te Américains dofuñu de kenn mënu leen teg pression te xejul ci Sénégal ah ndekki Amérique rek xejul ci Sénégal ñii naan way intérêt intérêt non Américains ils sont fous quoi. su buggee intérêt Sénégal daf lay jaay doole imposer la doole moo la ëpp doole da lay duma nangu sa alal kenn du ci man dara gis nañ fii Irak fii ñooñu daf leen duma ci sa pétrole américain bu ñu paree pour ngàcc Sénégal pétrole Sénégal daf leen di duma dafa ñuy duma mu jël pétrole bi mu neex ñu mu naxar ñu daf koy jël kon Amérique du affaire intérêt non non non affaire démocratie la ak sécurité. affaire démocratie ak sécurité ci dossier Tunkara ñoom tey est-ce que Tunkara bu ñibbee dina am jàmm Sénégal est-ce que bu ñibbee la vie de Tunkara n'est pas menacée parce que vous êtes capable de l'assassiner les images parlent les tortures dans des prisons sénégalais ñu ngi ko yor les images parlent loolu joué na. ba ñu ra ñu ñu ñu delloo refoulé projet euh, projet Tunkara c'est parce que l'État est sur la voie de perdre encore d'être ridicule aux États-Unis te bu état bi daanuwee barke salatul fatiha crédibilité Sénégal ak régime bi pare nañ ci parce que américain moom munoo ko jaay dara mu saf ko ah. moo la ëpp doole moo la ëpp fetal moo la ëpp armement moo la gën a xarañ dëkkam lay toog duma Sénégal Amérique bu soxlee pétrole Sénégal ak gaz bi France mënu ko téye Angleterre mënu ko téye Allemagne mënu ko téye Union européenne mënu ko téye Russie mënu ko téye kenn mënu ko téye ku dul yàlla États-Unis lay toog duma Sénégal ba pare ñoo jël pétrole bi par force mu dellu ci dossier Tunkara soxlaw la ay intérêt démocratie la leen di woon loolu mooy message bi c'est ça loolu mooy message te boo leen amulee ñaan rek Tunkara dina leen duma man maa leen wax li de li ma leen wax ni takk leen ko galaaj yan gouvernement Macky Sall bi régime bi Tounkara il va vous baat barke nam lu safar du leen dugg dana leen dóor bëccëg ndar kam wax laa leen wax de réew bu mu demee ba ba réew ma perte crédibilité sur les institutions internationaux da ngay xoolaat seen bopp Et nous attendons le procès. Ousmane Sonko a dit On attend. Parce que cette manipulation yi du jàll ay vidéo ay conférence non soxlawuñu yooyu procès la ñu soxla il faut mu leer procès la ñu soxla seen manipulation manipulation yi Adji Sarr va parler Adji Sarr lan lay wax lan la ñuy wax lan la Adji Sarr ñun ñi xam nañu Adji Sarr fenkat la du waxkatu dëgg kaka yor fenkat la naafeq la El Hadj Diouf système bi fi nekk système naafeq la mais vous êtes tous une bande de manipulateur Adji Sarr lan lay mun a convaincre amul ah, leen convaincre sénégalais yi ñun procès la soxla nañu dem waaw xanaa kuy dóora man kuy saaga bo wala yéen da ngeen a ragal procès le juge Samba lan lay xaar moo gën kër ngeen di verser ci ay ay convocation de chef de protocole la pour que munu leen wàññi doole Pastef c'est pas possible à force ngeen di persécuter Pastef muy gën a dem kanam à force ngeen di agresser Pastef muy gën a dem kanam sympathisants yi di gën a yokk rek di dem rek militants yi di yokk c'est pas taal bu yàlla taal la sant ci matt moo gën fay ko munu leen ko parce que dugg na ci xolu sénégalais yi ba pare dugg na ci xolu sëriñ si ba pare dugg na ci xolu jeunes yi ba pare dugg na ci xolu population ba pare kooku yàlla moo ko ci def yàlla daal moo jël Ousmane sonk fomp ko ba mu set préparé ko teg ko de côté ne comme Mamadou Dia sakkal nañ ko pexe Cheikh Anta Diop sakkal nañ ko pexe. dama leen di bàyyi ñi dem ñi naagu ba foog na ñoo ci nekk ma jëndal leen na kenn tegal leen ko nga xam ne moo méngoo ak yéen jamono di xale bu ndaw nga xam ne kayore réew mi sa moo ko mag mu ñëw faj leen man yàlla mu dugal ko ci biir xolu sénégalais yi en six ans d'existence il a conquis le cœur de tous les sénégalais mun leen ci dara seen xol mooy gën a dagg rek mais doo leen ci mën dara procès lañu soxla ubbi leen procès bi ñu dem moo gën que cinéma yi ngeen di def ak ñoom Adji Sarr la ay conférence de merde pour venir faire chier les Sénégalais là on est fatigué avec ces conférences de mensonge là de manipulation de merde la procès la ñu wax nañ jëm yéen a yore justice hein comme justice a baissé son pantalon yéen yore justice ñun yoruñu justice mais ñun yàlla la ñu àndal te yàlla mi ngi ànd ak ñun nañu dem procès loolu mooy wax ji mais seen manipulation yi ah, international xamuñu Adji Sarr ñu Adji loolu moo leen di wan ne encore vous êtes des manipulateurs quoi qu'est-ce que l'international va foutre là vous croyez que les internationaux là ils ont des problèmes ci Covid-19 bi problème économique ñoom ñëpp France a ngi nii tëj école yi euh, euh, euh, Allemagne a ngi nii tëj confinement bi ñoom tous ces pays là ils sont dans la merde là je crois que vous croyez qu'ils ont le temps d'écouter un fact-top là une pute comme euh, Adji Sarr la la menteuse lan lay wax lan lay wax ba tubaab bi la leen lan lan sinon vous ridiculisez yow munoo gagné communication bataille communicationnelle bi sa biir réew munu leen ko gagné munu leen gagné la bataille de l'opinion vous êtes tous des incompétents pour gagner ces ces batailles là vous avez perdu toutes ces batailles là vous voulez aller gagner une bataille sur le plan international quelle est l'opinion euh, euh, quelle est des institutions internationales ñi leen di déglu ñoo ils ont des problèmes fu mu ne nii économique lii la ñuy waxati si seen ñàkk incompétence bi ngeen am ak vision doo leen xalaat seen cerveau yi du dox seen cerveau yi baaxul loolu mooy problème Sénégal ay députés yi fa war a toog wala saytu ay roi yéen a ngi voté benn loi sur le terrorisme te loi boo xam ne c'est elle est liberticide cette loi la xaymawu leen ko xoolu leen ko parce que tout simplement y a que des cancres à l'Assemblée nationale mais yooyu yëpp dañ ko war a changer bokk na ci li gàllankoor Sénégal ay député yoo xam ne jànguñu jonguñu amuñu benn compétence mënuñu lire mënuñu def proposition de loi mënuñu défendre loi mënuñu décortiquer ay loi ñu jëndee ay pièces ci ay loi député yooyu ban compétence la ñu am et pourtant ñu ngi leen di fay askan bi moo leen di fay ay salaire yu duuf ñu yore ay passeport diplomatique ay 4x4 yi jar ay 30 millions te yow munoo liir munoo jàng ñàkk a job bu ñu demee euh, man dëkk man man maalaw man député Macky Sall la Macky dafa am député assemblée nationale loolu moo lay wane ñi fi nekk xamuñu dara xar sa moo leen gën parce que xar dana dox ba si yàgg mu yëg ni xiif na mu taxaw lu muy lekk ba pare dem ci teen bi naan. avancé xar xar loolu xelam moo ko may mu yëg ni man dama xiif mu dem wut lu muy lekk après mu jubal ci ndaal ci teen bi xam na ni ten bi foofu la ndox nekk mu taxaw ñi root may ko mu naan mu avancé astama doomu aadama moo tax assemblée nationale constitution assemblée nationale il faut que ñun bu ñu jëlee réew mi il faut que soppi ko parce que député wallaahi soo am jàngulee amuloo niveau liste boo nekk dañ koy xotti doo jàll bëgguñu ay député cancre assemblée nationale nous voulons des intellectuels des députés patriotes responsables intellectuels ñooñu lañ soxla assemblée nationale parce que problème yëpp mi ngi commencé assemblée nationale ak système de vote bi majorité amul yooyu yëpp ay coppi xeeti coppite yi nga xam ne war nañ ko andi ci biir assemblée nationale boo tax lan ngeen gis ay président assemblée nationale ñi nga xam ne depuis Sénégal amul indépendance ñi ngi fi Moustapha Niass bien avant l' indépendance du Sénégal Moustapha Niass mi ngi fi ba tey Moustapha Niass moo nekk assemblée nationale vous croyez que ça c' est sérieux un pays qui aspire à se développer là qu'est-ce que Moustapha Niass fout à l' assemblée nationale heure bi lan la fay def. ki nga xam ne bien avant l'indépendance ce jamono Blaise Moussa Massène mu ngi fi ba Senghor la Mamadou Lamine Gueye sengoor Moustapha Niasse mi ngi fi ba Senghor dem Moustapha Niasse mi ngi fi Abdou Diouf ñëw Moustapha Niasse mi ngi fi Abdou Diouf dem Ablaye Wade ñëw Moustapha Niasse mi ngi fi Ablaye Wade dem euh, euh, Macky Sall ñëw Moustapha Niasse mi ngi fi un pays honnête sérieux qui aspire à se développer il faut que ñu xoolaat loolu vous osez nous parler d'émergence nga ñëw ci conseil constitutionnel ils sont tous des retraités conseil constitutionnel ñoom ñëpp ils sont des retraités la Macky Sall dajale foofu pour ñu koy votel c'est ça le dossier là ñi nga xam ne yow lekk nga si cër ba war a dem retraité demoo retraite nga toog di lekk sa cëru doom non place bi nga toog noonu sa doom moo fa a toog les charges de du conseil constitutionnel lay waxal ak ñoom sa Niass xeeti nit ñooñu ngeen lekk seen jamono ba seen jamono weesu seen jamono doom yi ñëw ngeen continuer akimoo seen jamono doom yi toog lekk seen jamono doom yi ba seen jamono doom yi ñu ngi ne di weesu waaje weesu seen jamono yi sët ngeen toog léegi di ko ñëdd est-ce que dëkk bu sérieux bu bëgg a développer dana dana tegu ci ñun pendant ce temps que les jeunes les jeunes son là ñaata ay jeunes magistrats procureurs ñoo xam ne dañuy am éthique am déontologie gëm seen bopp fonk seen bopp am xam-xam am xarañte ragal yàlla jub te Sénégal ñor leen ñu ngi fi toog am compétence ñu bloqué leen jël ay guignol teg leen fële. di leen manipuler ngeen dangeen bëgg Sénégal li ngeen di lekk noonu lépp riz bala bala ngeen koo xam rek ngeen dugg seen bàmmeel boo leen duggee ci bàmmeel bi ci ngeen di xam ne ndeke ñun la ñu nekkoon di lekk rek safara la riz bala barke salaatul faati billahi wallahi wal kitaab bu leen foog ne li ngeen di fayeeku noonu yëpp yéen ñii war a dem retraite daf leen lew lewu leen lewul de ku leen ko waxul rek waxu leen dëgg te yàlla tax lewul safara ngeen di lekk ak riba balaa ngeen xam ko ñu takk seen tànk yi takk seen saañ seen pax yi laxas leen juróom-ñaari mètre percar daaj leen ci balankaar yóbbu gas pax dugal suul ba pare ba gaay jënd malakay si ci ngeen di doog a xam ndekk man li ma doon toog di lekk noonu yëpp riba la safara rek ngeen di gis mbokk fii àdduna la dañ fee ñëw pour jaamu yàlla mooy suñu priorité njëkk bu njëkk mooy jaamu yàlla ku ne jaamu yàlla ne jub ne ragal moytu baakaar moytu safaan di wax dëgg te yàlla soo amee nga dimbale sa moroom jaam soo amul ki ko sëqal war na am himaan xam ne amuma Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.